jàmm yàlla ak liggéey rek. rek liggéey moom duggul si leen loolu la wax. loolu la wax ndax moom jàmm yàlla ak liggéey rek. rek liggéey moom duggul si leen loolu la wax.